c' est pas des rumeurs ah. président dafa dellu ginnaaw. c' est pas des rumeurs. comme dellu na ginnaaw c'est ah, bien. c' pas mais on ne sait pas. mais mais de toutes les façons. loi Deme ko xam xam ne lu fi gën a am importance c' la légistique mooy ni ñu ko bindee parce que on n'amnistie pas des personnes on amnistie de faits donc ñan lañ fiy dugal ñan lañ fi bëgg a génne il nga gis loi bi pour xam lan la ensuite président Macky Sall li ko dese leneen xaju fi lu dul dem. donc vraiment initiative yooyu yëpp jaru ko parce qu'il doit partir man loolu laa jàpp beneen affaire bi oui tu veux me mhm. relancer non dernier mot alors mhm. dernier mot bi mooy euh, wax rek ne je pense que ce qui s'est passé mooy dañu interrompre un dialogue bu waroon am entre des candidats et le peuple je pense que li ñu gën a soxla actuellement mooy ñu prendre conscience que ne Sénégal dafa war a am beneen beneen tournure dafa war a jël beneen visage parce que y a de de tension dans ce pays nit ñi diviser nañu c'est la démocratie nag mais y a beaucoup euh, <coughs> de réaction yoo xamante ne ne dafay am entre acteurs politique wala même dans la vie sociale yoo xamante ne ne war nañ ko apaiser moi je suis pour l'apaisement man su ma sañoon Sénégal ñu fexe ba nit ñi ñu xam ne démocratie mën na am ku ne joxe xalaatam mais après ñun ñëpp ay sénégalais lañu. merci mën a yëkkati le drapeau. et ça c'est extrêmement important alors ah ah. mm-hmm. mooy libération yi ma yi ma gis temps <coughs> yi mais mun a cette affaire on prend ça à la légère mais ce n'est pas léger. <coughs> Euh, am na lu xew si réew mi y a les faits y les actes qui ont été posés <coughs> les faits mooy effectivement am na lu xew si réew mi. mooy am na tension bi fi amoon gis nañ ay kër yu ñu taal gis nañ ay cocktail mën a foofu gis nañu ay nervi yu tiire ci ay nit les actes qui ont été posés mooy c'est vrai wax nañ ne am nañu détaal et cetera jàpp nañ leen mais ñi ñu jàkkaar loolu ñu yor ay fetal di tiire ke jàppuñu ci kenn boobu mooy bu njëkk deuxièmement en doo de jàpp ñoo xam ne ils sont fautifs moi je suis pas je considère pas un détenu politique quelqu'un buy taal yëfu jàmbur loolu ñëpp xam nañ ko même dans l'opposition xam nañ ne man je suis clair sur ça mais bàyyil ma ñëw mais acte yu ñu posé ñoom mooy ginnaaw ces faits là dañoo ramasse xam nga luy ramasse maanaam guddi nga jël sa oto jël ay nit di dugal mais c'est inacceptable xam nga cette affaire là elle est mais man hier j'ai regardé des vidéos mm. <coughs> de jeunes yoo xamante ne sa buntu euh, liggéeyukaay ngay doox ñu jël sa kii ñu jël la dóor la tabase la dugal la si kaso bi chargé loo xamante ne ne le mandat de dépôt est immédiat c'est-à-dire am na lu procureur di def am na am na am na article yu muy invoqué article yooyu su ko dugalee le mandat de dépôt dañu la koy defal on les laisse croupir en prison mais au nom de quoi six mois huit mois au nom de quoi cest à ñooñu defuñu et la preuve on les laisse en vague parce que s'ils étaient des terroristes, ils vont aller au palais. S'ils étaient des terroristes, ils allaient, ils allaient aller au palais. Mais parce que xam nañ ne defuñu dara, ils avaient déjà la preuve que defuñu dara. ñu bàyyi ba benn moment on les laisse en vague ñu génn comme ça. Merci. mais ça c' est Merci. vraiment man ça dama koy décrier. Merci. et pour man euh, euh, warul xew si réew mu mel ni Sénégal. très franchement c' est dommage.